suñu xel jaxasoo ñun ñu def médiation patron bi ak kat ba ñun Facebook interpellé wuñu gouvernement dañoo wo ki nga monsieur Diagne Excaf mu nañu na seen gouvernement du Sénégal amel na ma ñu ngi baral mbir pour ci wéru nous bi ñu régler ko ñu nan nous suba wala gannaaw suba ñu Nous ki nga moy secrétaire général bi lolu kay moy ay wax yu waro bu boba ñun amatuñu amatuñu qualité. ci patron ki nga nous moy Excaf té bo yow bo Nous suñu xel ba pare nga ça veut dire que yow nous ah yow patron Excaf nga na nga jëmmal waxtaan donc loolu mooy wax ci waa Excaf liggéeykat yi sonn nañ ba yenn saay bu ñu toogee xaw ma fukki weer ak ñeent jotuñu payoor ki jiite Excaf TNT mu jox leen ay TNT ay décodeur TNT ne leen loo leen ko jaay yéen ko moom. attends loolu dinañ ko def borom kër père mère soutien de famille plus de vingt quatre mois fayoo ko nakay jox ay décodeur TNT nan ko dama jaay ko lo ci am waaw me nga yóbbu sa kër mais y a un problème état bi tok di sétane li moy état bi il est complice man nak fi may daanelee ci dossier bobu moy d'accord ñu ak li ñu dakk Lansana jandi ñu ngi interpellé SYNPICS au niveau national ñu ngi leen di interpellé yéen ah yéen bu ngeen deful gat sa pour les acteurs de presse gars yi dinañ leen bouf lek leen de leen mais da ngeen di def gat sa pour yéen itam pour s'en intérêt sinon gars lek sen seen xaalis noot leen ba paré du muju fenn avec la complicité de l'État du Sénégal nous dénonçons le licenciement arbitraire abusif du secrétaire général de la section Sempix de Excaf Telecom, Lansana Diandji

collectif yi frappe di liggéeyal war na romb ñen fukk dafa na nek ko jot na ñun ñëpp ñu def ben sali ku ci nekk indi sa yuxu ak sa pancarte dëgg ku ci nekk indi sa banderole té notel bi dafa doy té wóor na ma nek wa Excaf Télécom bu ñu amoon doole Pastef di génn ci biti kenn du leen def ni ak ñeneen ma ngi siy ñëwaat euh, waa Excaf Télécom les travailleurs vous avez tout notre soutien toute notre solidarité mbir mi nag jeexagul manifestation, nous avons fait des frites. Nous avons fait des frites. Si vous avez nous avons fait des nous avons fait des collectifs. D'ailleurs, nous avons fait des collectifs, nous avons fait des conférences de presse. C'est pour déjà vous donner un signal. Pour nous donner un signal. Nous sommes là, ici, et nous sommes là, nous sommes nous sommes là. Euh, Dougar Ouest. Oui, Dougar Ouest, nous sommes là. Issa Sissé, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Dougar Ouest waa Dougar Ouest qui est dans ci commune jënd ay terrain ay en 2017 Nous tabax ñu tok at mairie bi jaay mairie bi jox len mairie bi ak ñi fa ak ñi fa cosaanoo jox nous ay ñu jënd ñu fay ci état ñu at mais dëkk bi vraiment bu faites ni ñuy mobiliser police gendarmerie GIGN BIP ak état du Sénégal yépp pour topp waa PASTEF bu dee noonu lañ doon arrêt, liggéeykat yi di aar enseignants yi di aar suuf kon kon problème yi yëpp du am ni mobiliser état yépp pour ben nit mais nañ ko mobiliser pour yitte askan wi.

mais xanaa yow mairie nga ne ah déedéet soo que si moomu ko wala ah man mairie Diamniadio man ma djum et comme je dois dédommager waye bu si ti la mairie les collectivités locales sont des démembrements de l'État donc mairie bu mairie bu mënul régler problème bi État du Sénégal au niveau central ne régler le problème du collectif d'accord euh, des victimes de Dougar Ouest ñi nga xam ne ah wala wala mairie la wala état bi moo bëgg jaar seen kaw lekk seen suuf comme ni muy amee ci dëkk bi benn pàkk ñeenti borom nga jaay ko Yaya nga jaay ko Ousmane nga jaay ko Maymuna nga jaay ko Xooxaan nga jaay ko xaw ma Pape Niang ñëpp ñëw a ah, sama këyit ku nekk ñëw ne terrain bi maa ko moom loolu dafa war a jeex Sénégal waaye ay nit yu dajale seen xaalis seen ñaar dërëm seen ñaar fukk pendant vingt ans trente ans ne dañuy ut.

xaw ma deskos la tudd xaw def sa poche foog ñu wax ak wa def sa poche xaw wa waa deskos ñoom itam sen taxawaay doyna war lolu xala xanaa ñoom dañuy jot ci ay enveloppe motax ci ay borom barké rek lañuy ñuy musuma dégg def sa poche xaw ma deskos aar na pàkku baa doole ngeen jéggal ma wala néew di doole musuma ko dégg foo déggee deskos rek xaw def sa poche mu ngi ak borom banque yi xanaa ñoom dañuy am quota ci parki mais may que ne de des poche ci gendarmerie la bokk Madame, ci ministère des forces armées nous rek def arrêt def sa poche ah néew li doole bi dajale toute sa vie durant mu tabax keur nga ne arrêt def sa poche ah non non non bu def sa poche di am poche. Waye pas nous ñuy def ay golo yu pendant 30 ans def ci poosu xawma golo di béy babu dundee def ci poosu baabun déedéet duñ ko nangul. donc dossier bi dossier bi itam Dugar Ouest interpellé le gouvernement du Sénégal nous ñu le gouvernement du Sénégal ministre de l'urbanisme je crois que jot ngeen ko en tant que député comme Yalla Defna ak askan wi nek na député waaw dossier yu bëri duñ ko rek réglé ci mbedd dañ koy réglé ci mbedd bi waaw dañ koy réglé ci conférence de presse bu jaree marche ñu marche waaye dañ koy yóbbu tamit ci assemblée nationale. je crois que loolu la assemblée nationale di jëriñ et pas di séddoo ay sukkaru koor ay biir màkk ak ay biiram ñu interpellé gouvernement du Sénégal ñun gouvernement du Sénégal tontu ñu ne ñu bi ñu bindee ci kaawu ñii am jafe-jafe suuf ca Descos.

ndax mairie bi moo jaay lu mu waruloon jaay wala ndax Sococim moo ñu bëgg a sàcc mairie bi mairie bu Diamniadio moo ñu bëgg sàcc wala Sococim moo ñu bëgg a sàcc wala impôt et domaine moo ñu bëgg sàcc wala xaw ma gouvernement bi moo ñu bëgg sàcc wala ñoom ñëpp ñoo ànd def benn say bëgg ñu sàcc ñun lu ëpp juróom fukk ak juróom euh, victime euh, président Ousmane Sonko nee nañ ñeent fukki fan ak juróom dossier am justice ñeent fukki at ak juróom. dem na ba appel nee nañ dossier bu gaawee noonu musul am ñëw ma fi pour waxtaanee Ousmane Sonko xam nga lu tax may wax dossier Ousmane Sonko mooy di ngeen dégg Mamadou Niang Pape Mamadou Niang moo fi toggal liggéeykatu Transplast 34 ans ñu ngi justice mais ñii ku ñu yëpp ku ñu yëpp kon ñoom dossier bu am fulla ci ñoom mu am 45 jours mu am ñaari weer mu am ñetti weer waa Transplast 34 290 travailleurs quatre travailleurs at ak Nous patron Samir Bourgi faites fu ñu dem ci Les Samir Bourgi ne liggéeykatu Transplace nañ fay waaye xool nous kenn qui gis au Sénégal ana alalu Samir Bourji te mu ngeeg alal gendarmerie police BIP GIGN état Donc, mobilisé pour mu loqati génnee alalu Samir Bourgi pour ñu fay père mère soutien de famille ñu bëri dee nañ ñu bëri dof nañ ñu bëri seen kër tas na ñu bëri seen jàng doom yàqu na seen sëy tas nañu ñenn ñi ni ngi hôpital san wala dalal xel deux cent travailleurs ñenn ñi jiitu nañu fas suñu borom léegi lan mooy calcul bi c'est quoi le plan le plan moi non non non na affaire bi 50 ans nous avons dinañ dé bu ñu déwé kenn mais 34 ans at ak ñeent ñu ngi dang ci justice. wallahi lolu état du Sénégal dossier transplace y wala dafa def ben say ak Samir Bourgi té peut-être Samir Bourgi peut-être Bok na ci financé campagne APR non non non Li duñ ko D'une duñ ko 34 ans c'est une honte 34 ans de procédure judiciaire pour le dossier de transplaste.